suñu coalition ànd naawle suqali suñu gox moy coalition bi nga xamné bu sobé yalla moy gagné élection 23 janvier 2022 fii ci Bignona waaye lu ci ëpp solo gaa yi xam nañ loolu gaa xam nañ ne ndam ndam na mais lu ci am solo moy lan lañu ñu war a liggéey li ñu war a liggéey suñu programme génn na suñu programme génn na am na waa joo xam ne moo ngi fii depuis 2009 2009 ba 2022 treize ans moom nee na dafay génne programme waa gars koo xam ne du benn at du ñaar du ñeent waaye treize ans xale jutu bu dugg école ba 5e wala quatrième yow ngay soga am programme da ngay woné programme war nañ la laaj lan mo xew lay wax nit ñi ci programme xam lan mo taxaw mo wax ñu lan may bilan am quel est son bilan demain il faut qu'il commence par nous dire quel est son bilan waaye est-ce que bilan mën nga wax plateforme fo taxaw dans plateforme plateforme tayo plateforme bi fi nga ko fekk le projet tu l'as trouvé ici au contraire le projet est un nga ko tardeel da nga ko yéexal yàq xaalis bi naxa plateforme bi ñun kenn le projet est un projet financé au départ par la Banque mondiale conçu par de grands hommes de Bignona kon boog mënoo ñu nax boo taxawee di wax 1500 emplois mais où ça 1500 emplois yow bi ngay nekk maire ba léegi defoo même deux 3 emplois

c'est-à-dire nit ko xambe ne xamoo taxaw yow dal nguur rek mo la intéressé faale woo bi na faale woo waa na nguur nguur rek mo la intéressé donc a sigi rek di ñëwaan mo la intéressé yow nekkon nga fi PDS bleu yaa ngi bleu jaune nekkon nga ko fi ñu ne deetawaay nga gëné jaune bi dugal blanc nga nekk bleu blanc yaa ngi tudd CDD contrat à durée déterminée ñu ne dekk waaye léegi yow baroo beige ga mais gars ñi ki nekkoon bleu jaune jékki-jékki nekk bleu blanc léegi moom marron beige la bu subaa daf ñuy fekk si ci ci suñu vert jaune ak blanc léegi mu ñëw dëkkul fenn moom li tubaab bi waykat tubaab bi doon wax lui il a une doctrine Il a une seule doctrine. Lui, il tourne sa veste. Il n'est pas communiste, il n'est pas socialiste. Il n'est pas libéral, il n'est pas avant-gardiste. Lui, il est opportuniste. Il ne connaît qu'une seule chose. Tourner sa veste, tourner sa veste, toujours du bon côté. Toujours du bon côté. Mais aujourd'hui, il a fini de tourner sa veste. Sa veste s'est déchirée. Il reste à tourner son pantalon. Il n'y a que ça qui reste.

ku fi tricher bi dina door sa baaraam maître bi dina door sa baaraam suba bu amee programme original na ko génnee waaye amul programme parce que ku amul programme depuis 2009 ba 2022 nga bëgg a xëy na da ngaa am programme yaa ngi nax.